Thank you.

parfum wu ñu ngi macha allah kon tey waa Botiscuse la ñu seeti gi seen émission mag bu mag boobu di spécial mode tabaski. waaw ba tey nee naa leen ñu ngi ci biir Botiscuse ñu seeti ji tey toog jàkkaarloog la charmante Aïcha bu ne saa ma jox ko mu nuyoo. mu woo ñu dalal ko ginnaaw nag ñun moom ñu ñooy dalalaate ñun waa Saint-Louis TV ñu ñooy dalalaate ma chérie Aïcha maa lay nuyoo. fay naa la. ba yaa ngi si jàmm mais Aïcha sa bopp lan la. Ah, ñoom ñoo la defaral perruque bi defaral la ko nii ba mu nice. ñoom ñoo ko defar kay pour excuse la jógee. léegi ma chérie Aïcha bu ñu bëggee ñëw botte excuse comme na ku mel na man te xamul fan la situé nan laay def pour ñëw botte excuse. Euh, ñoo ngi fii Saint-Louis avenue Mame Rawane Ngom boo ñëwee ba école Mame Rawane rek boo ñu woowee ñu génn jël la incha allah. te yéen a ngi fi yéen jël si. waaw bien sûr boo ñëwee ba école Mame Rawane rek. ñu génn jël la. dafa mel ni boutique dafa amee salon de coiffure boo xamante ni tey boo jëndee perruque bi ñoom ñoo la koy ñawal wala. waaw bien sûr fii moom lépp moom tout est complet da ngay jënd bu la neexee nga toog nga ñawal ñu ñawal la bu la neexee aussi nga dem bàyyi sa greffage boo ñuy fekk ñu ñawal la ko ba mu rafet macha allah feereel la ko defal la ko lépp entretien woog yëpp macha allah boo ñëwee daal dinga kontaan. te da ngeen mel ni da ngeen di teinte tamit ay jërëfage yoo xamante ni tey nit day soxla teinte ñëw jox leen ko ngeen teinte ko kon yéen leen ci jaay jërëfage da ngeen di teinte ay jërëfage. waaw déedéet yemuñu si loolu parce que parfois da ngay gis ku bëgg mais du mën a jëndaat wala genre léegi bu ñëwee dañ koy teinte jërëfage am ko couleur bi mu mel ne dafa jëndaat bu bees wala ah. affaire yooyu noonu. kon daal nee ci waa Beauté Tuz yéexati ñàkk la rombati rëccu. bu ne saa nag ñu won leen produits yi nga xamante ni waa Botiscuse moom la ñu indi ma ànd ak sama charmante bi di Aïcha mu présenté ñu produits yi waa Botiscuse yéen ñi nga xamante ni nag nee naa leen di ngeen bëgg ay greffage yu rafet ay cheveux yu nice ah ay saag yu amul fenn ay diw ay lait de corps yu baax képp koo xamante ni bëgg nga loolu kan nga doon dem ba Ndakaaru ngay di ko wër jaratul ngay dem Ndakaaru ñëw leen fekk suñu fii ci suñu boutique bu mag bi di Botiscus bu ne saa dinaa bàyyi la charmante Aïcha ñu ànd mu présenté ma produit yi comme na ni ma leen ko waxee woon nee naa leen waa Botiscuse yemuñu rek ci jaay cheveux ndax nee naa la dañoo yore ñoom it ay saag yu am classe nekk ci en promotion yéen nga xamante ni nee naa leen bi ngeen sañsee ci julli bi war ngeen mën a yore saak ah salañ salañu yore ay pochet yi salañ salañu kon ñëw leen fekk sil ma waa Botiscuse ba tey ñoom ngi ci avenue Mame Rawane Ngom mu ne saa ma jox euh, la ay Aïcha mu présenté ma yi nga xamante ni moom moo nekk nii te rafet lool Aïcha saag sac yi waaw boo gisee rek ma leen leen war encore bienvenue chez Beauté Esquisse sac yi gis ngeen euh, daame na événement bi boo sàjjee gis ngeen fee euh, taw grande dame la daal macha allah rafet na am na couleur boo bëgg am na modèle am na aussi sac yéene petit sac pour ñi nga xamante ni nii euh, les les demi jeeg quoi na suñu classe waaw ah. gis nga waaw yii moom pour xale la sànq xale yi nag muy sacoche yi nga xamante xam nga ñun bëti excuse daal macha allah ñëpp lañ fi nekkal am nga xale yi ñoom léegi dañoo dooj dañuy bëgg di gàddu mag comme mag yi uh-huh. léegi gis ngeen bii ñoom lañ ko indil et puis c'est à 2500 francs seulement. cent nga ma wax. waaw gis nga tey 2500. gënati yomb. mën na ko gàddu mag mën na ko gàddu ndax dafa classe. gis ngeen dèjà ni mu àndalee sama yére bi nii macha allah. booy génn sa toq génn rek. waaw daal di daal di siy def sa ay effet yu sew. gàddu ko macha allah waaw toq bagage yooyu bi am coono waaw macha allah.

Beautescuse ndax nee naa la bagage yu Beautescuse yemul ci jaayum cheveux jaay saak boo xoolee lii léegi xale jigéen ñi dañoo bëgg bu ñu sàjjee des fois deseen ay tuñ mu rose rafet lool des fois ngi sànni ci tuuti lipo lèvre nga yaakaan lu ne la yéen nga xamante ni da ngeen bëgg ay rêve rose ñëw leen seetal ma waa Beautescuse may may la charmante Aïcha li nga yore lii lan la. waaw lii nag lèvre rose la. mooy xale yi nga xamante ne dañoo bëgg seen teint rose uh-huh. bii la ñuy daal di ñëw daw si fii si beauté esquisse uh-huh. beauté esquisse boo leen dem am na ko à 2500 francs li ci gën a neex nag mooy dafa am tombola boo ko jëndee dañuy def tirage uh-huh. mën nga gagné euh, produit alimentaire matériel électroménager ba si même ay périod donc macha allah daal daw si leen gaaw te da koy jënd à 2500 francs à 2500 francs nga gagné si tirage boobu waaw après ñu def tirage mu am ay gagnante. Mhm. ñu daal di ñëw fii jël si seen produit. ok ci biir beauté space lañ koy lay jox ticket tombola. ba tey lii tamit ci lèvre rouge yi. la bokk. mais damaa gis si coca cola. waaw dafa am parfum bu nekk am na coca am na fanta xam nga ku nekk parfum da ngay bëgg def mais am senteur bu neex déjà. Ah, d'accord boo bëggee am na coca. Mhm. am na fanta am na kii parfum yu bëri daal. d'accord yow mi nga xam te ne da bëgg senteur bu neex. Mhm. loolu ndaw si fii ci ba tey euh, la charmante Aïcha mu ngi noonu nee na leen bi ngeen bëggee ay rêve rouge yi nga xamante ni dafay rafet ngeen def ko seen ay tuñ rafet am classe lool ñëw leen Petit Esquisse ñoom ñu ngi koy jaayee ci prix abordable à 2500 francs ñu ñëw ñu jaay leen ko ba pare lu ci gën a neex li ci la charmante Aïcha wax mooy nee na boo jëndee dafay am ticket tombola ticket tombola bi nag mun nga gagné ay cheveux mbaa nga gagné ay frigidaire yaa xam sans dépendre li ngay tombé ci ticket tombalaa bi ba mun koo gagné kon daal waa Bouteskis daal am leen ak ñàkk leen daal neexul yéen daal dëggantaan dëgg lu gars yi di naan dëgg dëgg mooy dëgg waaye yéen it yéen dëgg mooy dëgg ci dëgg bi ngeen nekk waa Bouteskis gàcce ngaa laa may yéen. ba tey Aïcha place bi ñu taxawee yandi na lool rafetit na lool. ndax man dama fee gis ay produits yoo xamante ni man dama yaakaaroon ni sax amul Saint-Louis dakaar la am ma ñëwaat ba fii gis ko fii ci Botuscus te lii ku ko doon wër dangay dem ba Ndakaaru Njaay wala nga woote léegi lii nga xam te ni dañ ko doon wër ñoom tey waa Botuscus amee nañ ko Aïcha li nga yore sa loxo lan la. Euh, lii lèvre rose la. sept jours mu nga xamante ni dañoo bëgg sama lèvre rose bu gaaw a gaaw a gaaw. sept jours une semaine nga koy def avant ngay tëdd. seulement à dix mille francs après say lèvre macha allah. déedéet kay xanaa nga ni ma lii sept jours lañ koy def. waaw c'est lèvre rouge. à dix mille francs. à dix yéen xanaa da ngeen di maye. ah gis nga beauté moom macha allah. yéen dafa mel ni li ngeen yore moomu leen ko de. waa beauté excuse. <laughs> léegi dañuy daal di ñëwaat ak yéen si kii bi. lii savon la. waaw savon la bi moom. savon ni mooy njaboot la parce que toute une famille mën nañ ko sangoo. dafay defar teint. setal ko macha allah teint noir góor jigéen xale ndaw yëpp. mën na ko sangoo. yéen ñi nga xamante ne aussi da ngeen yore teint teint teint clair. bëgg seen teint gën a set. savon vitamine C la bii aussi teint noir ak marron yëpp. mën na ko sangoo comme la sama classe ak sa classe bi mën nañ ko sangoo. du def dara ci suñu yaram. non c'est 100% garanti. ok lii la na tudd Aïcha. produit réew la. lii dafa mel ni produit réew la de Aïcha. waa gis nga ñi nga xamante ni nii dañoo am réew. Mhm. bii rek da ngeen daal di daw si beauté esquisse boo leen dem am na ko da ngeen daal di daw si beauté esquisse yi jël bii. am na si macha allah boo leen ñëwee yoon ko diwoo quelque temps rek seen réew yëpp daal dañ. maanaam comme nañuy xeesal ba seen yaram am yàqu waaw waaw ñuy bëgg sol dara mu leen di déranger bu ñëwee mën nañ utiliser produit bi am na ci côté excuse léegi yéen lu ngeen koy jaayee bi cinq mille francs cinq mille francs ngeen koy mhm, jaayee nee naa waa côté excuse dañu yore moomu ñu ko def lii ngeen yore daal moomu leen Aïcha lii la nati la lii amati na lii Saint-Louis la am wala Dakar Ndiaye lii Dakar laa ko doon gis ah am na Saint-Louis de côté excuse moom loo leen doon jëndi Dakar rek daw si leen fi boo leen ñëwee da ngeen ko fekk. at leen andi lépp macha allah. léegi bi moom euh, pendista la. diw euh, produit avec glitocin la. day defar sa teint du ko yàq. macha allah daal produit boo xam te ne amul hydroquinone la. dëgg la ñu koy jaayee ñaata. 15000 euh, francs. macha allah lii la la ci la. tamit nga am pendista soft la. 24K gold bi. bii aussi day day day defar sa teint yi nga xam te ne da ngeen yore teint clair boo gisee teint gën a set. Uh-huh. gën a rafet gën a naay. Uh-huh. da ngeen di daal di daw si ngeen jël gamme bii boo leen ko jëlee seen teint macha allah kenn dootu ko waxatee. Uh-huh. gamme bi diw la wala ak lan. gamme la euh, savon la. ak crème nuit et jour. nuit et jour euh, sérum. ak lait de corps. moom la gamme bi composé. mais produit yi nga xamante ni moom nga ñu présenté tey bu ko suñu internet yi doon suivre nga xamante ni sur la chaîne leader de Saint-Louis TV seen numéro téléphone lan la. waa ñu ngi fii encore HLM avenue Mame Rawane Ngom boo leen ñëwee ba école Rawane Ngom rek boo leen uh-huh. wootee ñu génn jël numéro téléphone bi 77 405 60 93. cent 77. 405. 405. 60. 60 93. 93. nii à base de kii la castor oil. Ah mooy ñi ah. nga xamante ni da ngeen am problème karaw wala mm-hmm. genre. Mm-hmm. góor yi nga xamante ni dañu bëgg baar ba mm-hmm. naa ne beauté ñëpp lañ ci nekkal góor yi barbe la ñuy bëgg ak genre yooyu noonu da ngeen daal di ñëw jël si castor oil bi. Ah seulement à 5000 francs. man damaa mujj jommi wala. nee naa waa beauté exclusive lu ñu yore moomuñu ko. Aïcha li loolu la waaw lii moom karité la uh-huh. Aïcha Dija moo fi jaar encore yéen ñi nga xamante ne da ngeen am problème karaw jigéen ñi xale uh-huh. mag ndaw yépp mën na ko diwoo day traité sa karaw nooyal ko guddal ko uh-huh. macha allah traitement bi 6 mois la sa karaw daanu maanaam ci benn butéel bi moom nga koy traité 6 mois. wala da moo ko jeexee mën nga ñëwaat parce que famille aussi yow mën nga ko diwoo sa ay doom mën nañ ko diwoo ñëpp di bu jeexee mais traitement bi daal sa karaw daanu daal 6 mois la. 6 nee naa leen ba tey ñoo ngi ci biir beauté excuse bi ngeen gisee man sama perruque bu yànd bi nga xamante ni rafet na lool nekk blonde nga xamante ni da ngeen xale jigéen nga xamante ni da ngeen bëgg cheveux blonde yu rafet yoo xamante ni dafay étewu classe nooy lool ci bopp nga def ko doo yëg sax ni yow takk nga dara ci sa bopp waa beauty excuse am nañ ko boo xoolee la charmante Aïcha rouge bi mu def tamit waa beauty kiis am nañ ko Aïcha sa jëf sa jërëfage lan la waa gis nga bëri esquisse rek boo ñëwee mu génn ak yéen ci rouge bi couleur été la en plus moom la leen indi si tabaski bi ay coupe kaara yoo xamante ne nii day parce que dañu nekk si tàngaay loo xamante ne nii du la encombré du la sonal mën nga di yendoog moom journée bi yëpp doo yëg tàngaay bi macha allah et puis c'est léger voilà <laughs> bi ngi doo ko sentir noonu la avec beauté esquisse moom da leen yombalal lépp rek dara du métti si yéen nee naa ko ci avec beauté esquisse tout est tout est possible waaw ñëkkati ñàkkati la dañ leen ko ñawal ba pare da ngeen di ñëw ñu jaay leen ko ci prix yu abordable bu ngeen xoolee am nañu ay cheveux euh, coupe yu rafet frisé yu gàtt yaa ngi fi coupe yaa ngi fi ah yéen nga xamante ni nag da ngeen bëgg yu gudd tamit mu ngi fi greffage yaa ngi nii képp koo xamante ni bëgg nga ci ñëwal ah nga ñëw sees ñu fii ci suñu boutique di waa Beauty Excuse ñu fee ci avenue Mame Rawane Ngom suñu numéro téléphone Aïcha joxaat na ko. 77 77 405 405 5 60 60 93. dégg ngeen la charmante Aïcha nee naa leen ñu ngi ci avenue Mame Rawane Ngom dañ leen di jaay cheveux yu garanti ba pare defal leen euh, prix yu abordable yoo xamante ni am mënu leen ko am fenn lu dul ci beauté excuse yéen nga xamante ni da ngeen doon laaj ak di lam-lamee fan ngeen di amee jërëfaaj bu baax. ñëw leen fekk suñu suñu boutique di waa beauté excuse nee naa leen yéexati rëcc la. rombat yi rëccu la nee naa la fii ku fi sa wujj di gaaru ku ne rek yow yaa ko def ndax waa Boutiskise ñu ngi fii toog di leen xaar bu ñu ñëwee nag dañ leen di accueillir accueillir bu ñu leen di rek moo neex ak dalal bi ndax nee naa la le client est le roi ndax dalal dafa neex yaatal dafa neex te ñoom loolu dafa nekk ci ñoom même boo ñëwee dugg suñu bitik jënduloo sax dalal bu ñu lay dalal bu subaa boo ñëwaatee daa am envie dugaat pour ñu jaayaat la suñu ay produits kon waa Boutiskise ñu ngi nii ci avenue Mame Rawane Ngom Aïcha jox ma blonde bi dafa mel ni bi ma takk moo nekk nii de ah. maron maron bi gën a nekk blonde gis nga encore bu gàtt la tàngaay bi tàngaay bi moom ñun toujours bon est dañuy ñëw si tendance dañ leen xoolal li gën si yéen rek a chaque fois ñu indi suñu produit yooyu leen ko présenté d'accord jox ma frisé ba gis ngeen ko aussi frisé bi. léger na. aussi neex na si tàngaay bi. nooy nekk yosona waaw na surtout ça. Mhm. si am solo. qualité bi baax na. Mhm. macha allah et puis c' est garanti boo ñëwee suñu ay produits moom c' est garanti. Mhm. indil bële li danga koy peñe ñu yaakaar sa karaw nga yere dig te yoppiri nga takk ci rokk bi. gis ngeen bii nag moom mooy kinki la. afro la boo ko takkee macha allah dafa rafet. léger na et puis waaw ñëpp la jàpp en plus. ñëpp la jàpp. xam nga suñuy wax nooy na gars yi dañuy yaakaar ni dañ leen di wax dañ leen di nax mais ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ñëw di leen présenté produit yi ku xool jërëfaage yi xam ni marque lañ lay jaay ak originalité nooy bu mu nooy ak garanti xam nga ku lay jaay di la garantie kooku ragalu ku lay jaay di la garantie ragalu kenn léegi nangootul jaay cheveux di garantie kenn waaye waa boutique Cuisse dañ lay jaay ba pare garantie la Aïcha lii lan la redd la de dañuy soxla lu léger. Mhm. loo xam te la la. nooy et puis mhm. c'est joli boo ko la macha allah. Beauté Exquise daal yéen lañ fi nekkal daal da ngeen di daal di daw si ngay ñëw fii Saint-Louis avenue Mame Rawane Ngom boo la ñëwee ba école Rawane Ngom rek boo leen wootee. Mhm. ñu génn daal di leen di jël ngeen ñëw xool lu leen neex bu leen neexee ngeen jënd gërëfaat ñu ñawal leen bu leen neexee aussi. am na ay péril yu pare daal di leen koy yombalal ngeen jël si péril yi dem à votre choix daal yéenay xool. jeex ci paquet bi lan la. waaw yii aussi ay paquet la yu ñu leen indil moom aussi c' est abordable et puis li ma wax mooy que ni péril yii c' est abordable commencé na à parti de de vingt cinq mille francs uh-huh. boo indee vingt cinq mille francs boo ñëwee nga am péril macha allah c' est abordable et puis qualité yi lay jaay aussi baax na. bi moom gis ngeen ko ah. waaw gis nga prix Excuse moom dañoo yombalal gars yi affaire yi. yéen est-ce que li ngeen a ko moom. ah doy de. bii <laughs> moom le paquet c'est à vingt mille francs huit boules la li si gën a neex mooy ndimbal njaboot la yéen ñi nga xam te ne parent ngeen wala genre xam nga xale yi léegi moom dañoo waane dañ naan ay cheveux la ñuy teg paquet bi boo ko jëndee sa ñaari doom mën nañ ko bokk ah. ñaari xale mën nañ ko bokk c'est seulement à naa leen ba tey ñu ngi ci boutique Beautexcuse nee naa leen jërëfaas yu ñu leen di wan amul fenn te dañ la koy garanti dañ lay jaay cheveux ba pare garanti la ko ñu nekk ci tàngaay des fois la plupart boo gisee nit ñi dañ lay naan ay coupe carré moo leen di arrangé mbaa jërëfaas yu gàtt yi te lu ma ci gën a neex ay paquet vingt mille francs ngay dégg vingt cinq mille francs ay ah, xoolal ma lii ah, Aïcha. waaw comme ni ma la ko waxee woon sànq. Beautexcuse mhm. ñëpp lañ fi nekkal. Uh-huh. léegi bu loo am rek da daal di daw si ñëw fii si côté Esquisse loo am di nga am perruque. di nga am greffage du moins. gis ngeen bii. Mhm. bëri na six boules la. six boules la. Mhm. seulement à vingt mille francs. comme ni ma la ko waxoon sànq ni ma njaboot la côté Esquisse leen dara méttiwul. dëgg la ñëpp daal lañ fi nekkal. loo am rek boo ñëwee macha allah doo am doo am problème. dëgg la. dafa mel ni paquet bi da ngeen ci jaay des fois genn wàll paquet. waaw waaw comme si tey bu nit bëggoon. Mm-hmm. waaw ah, moitié paquet bi mun ngeen ko jaay moitié. waaw bien sûr waaw waaw boo ñëwee ñun dañuy xool rek li nga xamante ne nii dina la mat ñu ne bu dee 3 bul ñu ne la 3 bul mooy mat bu dee 4 mm-hmm. ñu ne la 4. Uh-huh. daal ne la jëndal 4 yi nga yóbbu. dëgg jëndal moitié bi 10 000. jëree nga dolli benn bul ñun daal boo ñëwee macha allah suñu affaire moom méttiwul. ñu ngi bëgg rek. bu ba tey Aïcha lii la rafet léegi damay ñëwaat encore. bi moom le paquet c'est à dix mille francs. ñaar. gis ngeen ko nii. Mhm. c'est léger. Mhm. nooy na rafet na. dëgg la bii aussi bu la neexee ñaari boolu dina mat bu la neexee aussi nga jënd. Mhm. Euh, moitié bi cinq mille francs mu nekk quinze mille les trois boules aussi dina mat périm. wala bu dee ñaari kese boo ko boolee clôture. day mat c'est seulement à dix mille francs. léegi dama daal di ñëwaat ak yéen bii si bii nii aussi. gis ngeen ko longueur 18 la. 18 dafa mel ni gis ngeen ko ni mu wàccee red la waa. gis ngeen ko ni mu wàccee. et puis c'est léger. seulement à 60 000 francs. boo ñëwee ngeen am seen bu greffage bu macha allah. waaw ñu jaar leen jaay closure tegal leen si boo leen bëggee sax ñu ñawal leen yéen daal boo leen dem passé leen rek yóbbaale jeex na def nga bii encore. dañuy ñëwaat bii encore. Mhm. frisé la kan na mhm. bëre na boo mhm. bëggee aussi ñu jaay la moitié bi gis bii moom dafay dafa dafa abordable parce que dafa ànd ak closure doo jënd ba pare di jëndaat closure à part seulement à quarante cinq mille francs le paquet nga am sa bopp sa macha allah sa prix bu rafet jonga ma xam ngeen dinañ jëm dañu jëm si événement daal bu te excuse yéen la fi nekkal daw si leen te ni coupe carré ngeen bëgg. comme sànq ne woon naa am nañ ay péril. am nañ ay greffage greffage yaa ngi nii. coupe carré boo ñëwee bu la neexee boo si tànn rek. nga daal di dem ñu ñawal la wala nga toog fii jënd sa clôture ñu ñawal la macha allah. ba pare man lu ma jaaxal yéen bu ngeen di ñëw périg bi maanaam tey bu ma ko jëndoon. waaw bu ñu leen nee suba ñëwal jël sa périg bu ñu ñëwee dañu fekk périg waaw waaw bu la neexee sax nga toog ñu ñawal la. nga toog ñu ñawal la jox la sa périg nga toog ñu ñawal la jox la sa périg nga yóbbaale yaay xool c'est au choix daal. encore ñu ñëwaat ak yéen bii. si coupe carré yi ba tey. jeexagul gis ngeen. bii aussi le paquet c'est à trente mille francs. moitié bi quinze mille bu bëggee parce que bii aussi trois bu yi day mat. day mat perruque da am coupe carré bu woyof bu léger. macha allah. d'accord bi nekk trente mille francs ci six boules. macha aussi encore. coupe carré la ba tey pareegu coupe carré la ba tey le paquet à trente mille francs ñetti takk la bu la neexee ñaari rek aussi tamit day mat mu jaay la ñaari buy yi vingt mille francs nga jënd closure dem am sa prix bu rafet waaye toll waa nee naa leen gis ngeen suñu produit yi nga xam te ni waa Beauté Excuse moom la ñu présenté ba tey ma àndalaat ak la charmante Aïcha mu solaat ci bu nice ndax nee naa la sol na cheveux bu gudd redd bu nice Aïcha su cheveux lan la waa gis nga comme ni ma leen ko waxee woon sànq dama leen indi preuve à l'appui dama leen woon prix gi dafa léger dafa neex ci tàngaay bi uh-huh. et puis dañu jëm ci événement te dafa tombeek tàngaay gis nga dafa neex journée bi yëpp mën moom du la moo tax léegi ma teg ko pour won leen uh-huh. ngeen gis ni macha daal uh-huh. weer di gis bokk ci ngeen gisal seen bopp léegi produit yi nga xamante ne yëpp moom la ñu wanee pour ñu ñëw fi nan la ñuy defaat Aïcha euh, ni ma leen ko waxee woon sànq da ngeen ni ñëw ngi Saint-Louis bu te Esquisse Saint-Louis da daal di daw si fii si Saint-Louis avenue Mame Rawane Ngom boo la ñëwee ba école Rawane Ngom ngeen woote si numéro bi 77 405 60 93 ñu génn jël leen yéen a ngi fekk si ba waaw bien sûr waaw école bi rek ngeen woon. ba tey sama gars yi neewoon naa leen ñu ngi seen émission spéciale mode tabaski ndax damay naan boo sañsee yëre bu rafet foog bopp rafet te bu sa bopp rafetee foog nit ñi ni la foo jaar waa Beauté Excuse ñoo ngi fii toog di leen jaay ay cheveux yu mucc ayib ndax nee naa leen bagage yi ñu leen présenté yépp mun ngeen ko doon wëri ji Ndakaaru Njaay waaye am na fii ci Ndar Géej di waa Beauté Excuse avenue Mame Rewane Ngom seen numéro téléphone tollu ma ay Aïcha jox ma ko 77 405 60 kon dégg ngeen ko nee naa leen ñoom dañ leen di woo directement ngeen wax leen fan ngeen nekkee ñu ñëw fekk si leen ba fi ngeen nekk dugal leen ci bitig bi dalal leen lalal leen tapis rouge nee naa leen waa boutique Cuisse nag seen ay bagage dañ lay jaay cheveux ba pare garantie la ko ndax nee naa la léegi jaay cheveux sax dafa metti ba di ci garantie nit loolu ku ñeme ak ku am fi dëgg moom moo koy def kon sama gars yi rendez-vous incha allah très bientôt ci seen beneen numéro émission spéciale mode tabaski la sista tuuti la woon ma sama caméraman bu ñaawul bi di manjay et eh, di leen remercier yeen nga xam ni yéen a suñu chaîne leader di Saint-Louis TV maximum de j'aime dama leen koy ñaan sama gaay maximum de partage malen leen koy ñaan sama xarit yi eh, merci encore une fois Mangai.